assalamu alaikum euh, yi ñuy seetaan ci site bi nga xamanteni modi dakarvision.net euh, ginaaw Dakar Vision point net euh, bu sante borom bi ci Brom ñu Taïti kàttanal ñu may ñu bañu ñu fi ci dekk bu sel bi nga xamanteni modi dekk borom Touba ci safar niki ki ci samedi ji ci lañuy magal li nga 18 safar nga xamni Serigne Bamba moko woté won ni bëss bi bu ñëwé nañ ko ko suñu Euh, tay nak ñi ngi fi ci Touba ginnaaw bu nu jugee ci ki nga xamanteni nyi nyau Serigne Fallou Mbacké euh, ñi ngi nak ñew ci rakam ji nga xamanteni ni modi Serigne Makhtar Mbacké euh, Serigne Makhtar ginnaaw bu ñu la nuyo siyaare la ci aljuma ji ana tay lan rek nga ñu mëna fatali ci bëss bi nga xamanteni Serigne Bamba mo ne won sa bu nañ ko ko santalé suñu borom muy 18 safar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokk julli ñuy diglu ñu seetaan ak mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla yéen ci yéen bi sallallahu alayhi sant Seexul Xadim bu baax loolu moom bu ñu ko laajee dañ ci am dañ ci mën a wax ngir Seexul Xadim kenn ku ne xam ne ne woote bépp irham jaamih la wara yaa hadiyan radaan la irham jaamih la wara Seexul Xadim ñëpp la fi nekk loolu nekk lu fi tur yi rek waaye mbooleem jullit yëpp rek imma islam yëpp la Seexul Xadim nekk lool xam nga dafa waxoon ne damay wax ne eh, yoon wu nekk dañ koo askanale ci dara boobu mooy Seexul Xadim Seexul Xadim nag yoonam dafa wax ne ana muridillah muridillah mooy ki namme dem ci suñu borom ki bëgg yàlla la la la Seexul Xadim waxoon yoon woo fi gis rek am na bu ñu ko askalee ci yoon ba mu yoonu murit Sewul khadim nak eh, ak ndawam ba ci magam lepp daf ko jax yalla sunu borom tabaraka taala ba ci bis yi nga xamne ci la amu nat bu mag bobu bu reuy bobu nga xamne ci lu ko genn ci dekkum bu sel bi di Touba yóbbu ko ci géej gi ñetti at yu manki ay weer bi mu ñewé lim wax moy mbooleem sama non yëpp yu ma doon tek ay nat yu ma tek ay cion yëpp jégg na leen gi jëmi sunu borom bolé ci nak ñaanel yalla bi mu ñëwee lim njëkk def mooy bis bii nga xam ne ci la ko suñu borom tegaloo di fukki fan ak juróom-ñett ci safar dafa wax ne li ma am lépp ci la ma ko suñu borom maye. moo tax xam nga boo déggee ak faal ya siral masala ubban wala ilaha illa bari yooyu tax boo déggee ak illaa yaqadlahu ma lam yakun wala yakun habadan li mumkin bari yooyu tax te lu jiitu loolu jiwatu bil quran rabbil mu'min li ma nafsiha wa sax sax lañ la wax nga xam ne alquran ci la jàpp moom bàgg ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci la dem ba suñu borom ubbil ko mboolem sekkaram yëpp ci la amee bi ci ak njàmbaram ci la ko suñu borom maye bis bi ci la ko maye mboolem li mu doon sakku ci la ko maye ci la wax ne bis bi su ñëwatee ti fukki fan ak juróom-ñett ci safar yéen ñi nga xam ne ay jaam yàlla rawatina yéen taalib samay taalib yi bopp da ngeen ñëw sant la ma yàlla ci bis bi mi fukki ak juróom mu ne an nan nan nan ngeen ma koy santlee mu ne damaa bëgg su ngeen ñëwee yéen ñëpp ngeen berleel ma te ñi ma fi woo ñëw fi ay bernde ak jàng alxuraan ak jàng xaseet ak tudd yàlla suñu borom loolu la loolu la wax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dafa wax ne bis bi su ñëwee waa barsàq sax dinañ yëg ne bisam bi ñëw na ci wàllu bernde ak alxuraan ak jiw yi jóge fii ci àdduna ak jëm ci ñoom moom la sëñ Tuubaa wax kon nag li ñu war ñun taalibe mooy góorgóorlu ji Seexul Xaddim bii nga xam ne bis moy suñu njëriñal aduna ak suñu njëriñ alaxira ci njëriñ alaxira ci la nek ki nga xamne ne amul lu lenn nag te yaakaar lu len eh, te yene la jàmmi aduna ak jàmmi te jox la nga tej sa bët lu mu bëgg rek da nga wara nek muy muy wote cheikhul xan lolé nak ni ngi ciy digal taalib yëpp ak julli yépp mu nek ci lolé ndax bi l'islam so ba tay kenn kuy wote magal yalla ci kaw suufu amul amul ci àdduna seexul xadim doo ngeen gis mu taxaw temm ci woote biss yàlla bu toll nii ay millions million millions doomu aadama di ci ñëw tu ku ñëw doo xiif doo mar doo sonn te du coono yi sax liy métti métti ñoom ñu wut Sëñ Tuubaa duñ ko yëg te dara warul ko coono ban ci waroon a jànkuwut Sëñ Tuubaa yoon na ko te Sëñ Fallu moo wax Sëñ moo wax ne Sëñ Tuubaa nee na ko mboole magal gi ku ci ñëw naa la jox loxo sëñ Fallu ko sëñ Fallu dafa wax ne bu bisu magal gi su ñëwee ban dem ba ci yor-yor magal gi sëñ Fallu ne sëñ Tuubaa ne dana yéeg ci ñetti yoon ci jumaa ji ba ci soror bi wàcc bu xoolee nit ñi bëree di mas-mas lool ne day wàcc yéegaat def ko ba mu ñetti yoon sëñ Fallu ne su ko defee nag dana dox ci mbedd yëpp kenn ku ne mu jox loxo kenn ku dug ci biir kër yi kenn ku nekk mu jox loxo loolu nag wàllu baatin la. sëñ Tuubaa ni na képp ku fi ku fi dugg la jox loxo ji bi kon bis bi lu jara fong fonk la lu jar la, kara la rawatina ñun taalib yi nga kam ne taalib bi sëriñ Tuubaa da am lu nu moom kon nañ fonk bis ba, baax te gulu ci baax te lépp luñ ci am nu def ko ci di ko bu baax sëñ Fall da wax ni gi de su aso, ban bis bi bu ci suba sëñ Fall ne tam naa sama waajtaay man jëmi dewen sallahu sëñ Tuubaa waxoon na ne bis yi damooy seen bis daane tabaski su ñëwee bépp taalib boo xam ne am nga menn xar rek nga xam ne su màggal gi ñëwee doo doo ci def dara sëñ Tuubaa waxoon na ne na nga bàyyi bi màggal gi ñëw sëñ Tuubaa waxoon loolu daane ku ci am ñaar na bay benn bi sama màggal gi nga defal ma ko ci ku ko amul lu mel nag na nga xaar ba màggal gi te nga jég tabaski jamono yooyu nag barke bi xewli wàcc nu dem ba nu tuddee ak Tabaski sax ndax ba Tabaski Sëñ Tuubaa tudd ndax xam Sëñ Tuubaa dafa barkel ba lu mu tudd dañu barkel Sëñ Tuubaa nee na déedéet su ngeen ko tuddee bi day mel ni bidaa te Sëñ Tuubaa nee na moom du laal bidaa du ma jege bidaa moo tax mu ne màggal màggal Sëñ Tuubaa moo njëkk màggal ci ci lislaam moo woote màggal màggal mooy màggal ku màgg mooy màggal jëmmi yàlla ji màggal jëmmi yàlla ji nag mo waral mu wote li bis bi ngir talib yep wusiko ngir jam yalla yep wusiko nu andak ak nu ànd ak moom nag ko sante ko sun borom ba nopi talib yi ñu ci bari wala julli ñu ci bari dañuy ne bis bi du bisub seigne touba bisub yalla la bisu du màggal ak sëñ Tuubaa màggaluk yàlla la seigne touba mo wax ne ñew leen ànd ma sant ma sama borom ci teranga jimu defal loolee nag loolee nag kenn ku nekk da war a xam xam ne nag Sëñ Tuubaa moom wóotiwul ngir jëmam ji waaye yàlla la woote yàlla nag kuy woote nag jëmu ko ci ñi ko yaakaar rek kuy woote yàlla bi muy wooteel yàlla képp ku gëm yàlla képp kuy chrétien képp ku gëm yàlla ci woote Sëñ Tuubaa boobu nga bokk foofu la Sëñ Tuubaa nekkoon borom foofu la Sëñ Tuubaa tegoon boromam foofu la ko boromam teg damay wax ne mboolem lu ko suñu bor Sëñ Tuubaa de mboolem lu mu liggéey yàlla suñu borom fay na ko fay na ko ci taalibeem yi fay na ko ci mbooleem dëkkam yi fay na ko ci muritam yi ndax taalibe yi taalibe yii taalibe benn taalibe bu ñuy waaye murit te ba mel ni moom amul ci àdduna dëkk bu mel ni bu barkeleen Tuubaa gii amul fenn ci àdduna jumaa ju barkeli jumaa yi Seexul Xadim ji amul jenn jumaa nu barkeli ci àdduna ñu ñëpp teg seen bët kon nag Sëñ Tuubaa lu mu ñu dig fii ci àdduna ñu teg seen bët lan mu dig yombal xiyaam moo ko raw fop te sëñ Tuubaa waxoon na ñett yii moo ci man fop sëñ Tuubaa nee woon na maa mën ci géej gi loolu moom leer na maa man ci jër ji loolu leer na daan na bi jot nag ëllëg ëllëg yombal xiyaam sama loxo bu tuut bi ku mu dimbali doo am dimbal boo liggéey loolu Seexul ko xoon kon nag yéen ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci coono yi nga xam ne da ngeen a bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw ba fii ci pàkk bu bokk ci pakki Seexul Xaddim bi nga xam ne Serigne Fallou moo ko loon ak tànkam teg ci sama waajur wi Serigne Modou Dieng Mbacké Serigne Fallou ak Serigne Cheikh Gaïndé Fatma noo taxaw fii nee na rëdd lu doy rek lu rëdd mooy pakk bi pakk bi nag waxuma la Serigne Fallou waaye borom dafa waxoon ne pakk jëmi pakk bi day defare ku fi ñëw loo bëgg rek danga ko am na ngeen ci nag seen bopp lu ngeen ci ñaan ak li ngeen ci rek bala na ngeen déwén suñu borom dañ leen ko jox bakku barkel la bak la bo xam ku fi ñew lo fi bo fi andi jangoro suñu borom dana ko safra bo fi andi taw suñu borom dana ko safra bo fi andi aju suñu borom dana ko fajj lu bok bok na ci pàkki Sëñ yi li tax mu gën ci bok nag moy mboolem pakki seigne touba sos ñi ko sosé ba fi may waxe yow alquran rek fi nak at mu nek nangami dong no fi wacc no fi bind kaamil nangami donga noo fi bind mu ne noo fi wàcc alxuraan te loolu yombut te na ko sëñ Tuubaa di woon ba léegi dara soppeeku ci jaamu yàlla ak jàng alxuraan rek fi nekk ba ñun ñi kenn ku nekk fo fo fu waay nekk nekkal fi sëñ Tuubaa rek ci loolu fa nekk kon nag yéen ñu ngi leen sant bu baax di leen xam ne am ngeen dimbale suñu borom. bëggoon naa ñu ñëw ci euh, bés bi nga xamante ni euh, moo tombeek 18 euh, safar ji di bisub gaaw bisub gaaw boobu nag am na luñ ci waxoon. waaw bisub gaaw bi. li mom da day okk bu tëjee geesoo lu olof di wax ndax xam nga bis bi ci lako ci leen ko yóbbu woon ci bisub gaay fukki fana djuroom ñet xam ngeen ne yi ñu ko tuumaaloon yépp xam ngeen ko ci xamal nga nako cheikhul khadim day day jaar day xex day yor ngànnaay te lool lepp ñi ko kalaami won ay mbokam la ñu nek ci rew mi noo kalaami won seigne touba ak touba bi rek te bobu seigne touba damay wax ne mboolem tarixa yi bu fi ne sëñ Tuubaa ñëw na fekk sa tarixa yi taxaw bu yàgg ba ci waajur membre at sëriñ tarixa xaadir yi nekkoon waaye mu doon ndaw mu jëfeeñ gën a barkeel nun dem ba yoon wi tarixa murid nu jàpp na moom benn tarixa ci Sénégal te dara wëllu ko lu barkeel gi rek la ko waral nag mooy jox gi mu joxoon yàlla boppam xam nga noonu ma la ko waxee bi nga xam ne suñu borom def na nu tuumaal ko ne ko da nga yor ngannaay di xex ngir ngir jaatu ñun bisab gaaw bi la won bisab gaaw bi lu fi jele won jinne ko tuba yob ko Mbacke Jolof bisab gaaw bi lu fi joge dem ci géej gi mu wax ne lu lepp lu ma am rek lepp lu ma liggéeyal yalla ci bis bi sun borom fay kon dafa melni bu ñu ñëwaatee gaaw nak dajje ak magal gi lolu aaju fañu non rek la kon nak li leen sant ba di leen gëreem di leen ñaanal yàlla yéen it seen télé bii ak seen bi suñu borom barkeel ko ba fu ngeen bëgg ma àgg fa ma àgg fa ci barkeb Seexul Xaddim Seexul Xaddim mën na ko te dana ko def ndax Sëñ Tuubaa kat ku mën boppam la te ku ko liggéeyal mu fay la Sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal do xaar tey do xaar ëllëg du xaar suba day fay léegi du fay léegi kon li war def ñun ñi nga xam ne doo yàggal Sëñ Tuubaa sunu adduna xam nga Sëñ Tuubaa dafa ko ne ruuxam jëmmam yàpp deretam ak deretam ak njabootam yëpp jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dem ba ci yàgg mu ne adduqal te jëy bi sax la Sëriñ Tuubaa wax daana sa yonent bi dafa maa dugal ci poosam jëm ma àjjana ilal jinaan yi loolu la Sëriñ Tuubaa wax kon ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi nag ñu dañoo war a fexe ba dugg ci poos Sëriñ Tuubaa a Sëriñ Tuubaa yóbbu na àjjana nan koy defee nag mooy fexe mboolem lu Sëriñ Tuubaa digal lu nekk ca mu traité bu ñu ko jegee bi lu bëgg lu nekk ca loolu bu ñu ko defee dana am ndimbalu adduna ak ndimbalu alaxira loolu rek laay doon wax tubarkal jërëjëf asalaamaaleykum. Euh, jërëjëf euh, sëriñ euh, Matar Mbacke dégg ko mooy jëwriñu kër gi di rakk ci sëriñ fallu mbaki waxtaan wi yaakaar naa ni am na solo trop xanaa rek kilifa gi mooy bu ci mënee sànni rek ay kàddu ñu daal di tàggoo. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi wax jë alhamdulilah alamin sëriñ bi du wax sax ñu di ci teg ay kàddu waaye gannaaw ni mu ko waxee rek ñooy jëwriñu kër gi eh, noonu la ko eh, sëñ Tuubaa waxee eh, xarajtu yawma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi chenri safar génne nañ ma ci bisub gaaw fukki fan ak juróom-ñett ngir ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ak sama borom tey bu ñu demaatee ba mu tombe ak gaaw it mooy ni ko sëriñ bi waxee mu ne bu dikkatee na ngeen ma santale sans borom euh, ci lépp loo nga xamante ni dana berndeel ci jàng alxuraan ak jàng xasaayit ak sant yàlla bi sëñ Fallou ñëwee woote màggal gi fii ci Touba ku ñëw di ci def di ci def ba Serigne Saliou Mbacke ñëw ne lépp loo nga xamante ni euh, euh, mën nañ ko ci wàllu berndeel li tàmbalee ci gileem la sëñ Touba waxoon ba ci ganaar kon bu boobaa mooy 18 safar. giléem ba ganaar boo xoolee giléem ñeenti tànk la xar ñeenti tànk nag ñeenti tànk béy ñeenti tànk ganaar ñaari tànk boo ko calculer mooy fukk ak juróom-ñett nekk 18 mooy 18 safar bi sëñ Tuubaa wax kon lépp lu dagan rek buñ ko defee dana tombe ak 18 safar bi kon sant gi foofu lay yem jërëjëf sant nañu jërëjëf euh, yaakaar naa ni euh, waxtaan wi am na solo euh, kon sant ak ngërëm ñeent xanaa rek di ñaanal sëñ bi yàlla sax borom guddal fan wi yàggal la fi lool mbake ba nga yëg ko di sant tamit aussi mbokku taalibe yi ak ñi nga xamante ni ñu doon seetaan ci dakarvision.net di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla mi nga xamante ni mooy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ci daraje Serigne Touba borom màggal gi jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba.